président Ousmane Sonko projet la ñu jaay te projet boobu ñun ndaw ñu ñoo ko jënd te bakkan lañ ko jëndee lu ko si jaral Macky Sall ñun jaral nañu ko jaay doole bi xoko talaate bi mooy jeex gasa gassa bi nag ñun fa ñu toll mbir mi day réglé wu si nii wala si naa réew mi teguwaat si yoon suñu alal mu delluwaat si ñun ñun ñu jëlaat ñu jëlaat suñu moomeel injustice bi jeex si réew mi li nga xam ne tubaab bi teg nañ ko loxo ñu delloowaat ko ndaw ñi ku si nekk mën a gis sa bopp si réew mi président Ousmane Sonko foo woote développement war a jëlaat suñu réew xoolal li mu sacrifié lépp